asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yu tedd yi ni janool eh, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey jii di ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru shawal 1442 eh, eh, dëppook 6 juin 2021 ñoo ngi fii ci kër sëñ Moustapha mu sëñ Cheikh Mbacke Madina ñu. toog ak jenn kenn ci mbokki taalibe yi muy sëñ Cheikh Ahmed Ndiaye Ngiraan di ko xamee ne ni ñëpp a ngi koy bàyyi xel muy bay waaramit ci toolu Cheikhul Khadim waaye it di ko xamee ne ni ay kàddoom saf na murit yëpp ndax kàddoom yëpp ci dëgg la koy teg ak gëstu boo xamee ne ni du teggi tànkam fa mag ña tegoon seen tànk tey ji nag ñu war jeexaat kenn. ci njabootu Cheikhul Khadim mooy koo xamee na ni dundam dafa fees dell ak njëriñ euh, muy koo xam ne ni euh, ñaareelu euh, maanaam ki fi njëkk a toogal Cheikhul Khadim di way juram di Cheikh Moustapha mook si suñu Cheikh Mbacke ñu bokkoon genn keppaar gu ñu yaroo muy koo xam ne ku ràññeeku woon la ci e, gannaaw magam jooju Serigne Cheikh waaye gannaaw suñu Cheikh it mu jiitewaat njaboot gi loolu lépp nag ñu fas yéene cee ànd ak Serigne Ahmad Ndiaye Nguirane mu jeexatal ñu dund gu barkeel googu nga xam ne ni Serigne Mbacke Madina def na ko fii fi Touba kon sëñ Mbacke bisimilah kon suñu Cheikh. E, Ahmadou Ngueye naan xam naa ne du xam fu ñuy tàmbale fu ñuy yaa di xam li ñu bëgg a laaj ak li ñu bëgg a <laughs> jërëjëf. aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani al Xadim bokki jullit yi bokki talibe yi noo ngi fii tey ci Daarul Xuddus ci kër Serigne Moustapha moom Serigne Cheikh Mbacke Madina i fàttaliku rek kenn ci njaboot gi kenn ci ñooñ lislaam kenn ci doomi réew mi kenn itam ci kilifa yoon wi di sëriñ Mbàkke Madina muy am solo lool nag ci bis yiñ leen di fàttaliku ñu ci fàttali seenug dund di ci fàttali seen taxawaay di ci fàttali seen jikko ndax jublu ci bëgg nit ñi am ay royuwaay nit ñi am ay référence ndax dañoo tollu ci jamono joo xamante ne ni royukaay jafe na ci lool ñoo tollu ci jamono ju lëndëm jamono ju mën a fàbbiwaate ba tax na buñ delluwaatut xoolaat suñ mag ñu baax ñu ñëwee seen dund gu sell goog yi ñu di ko waxtaane jamono dana këf sunu njaboot lu bare bari ndax ñii fi nekk gis ci koo mën a roy ay xaw a jafe léeg-léeg te sëñ Mbàkke Soxna loo daan wax ni kuy wut roy waaye xool ko ci biir suuf waaye ñi ci kaw moom ku leen topp a nga juum mag ñooñ yi nga xamante ni nii ñoo fi nekkoon nag dañoo newoon ca la leen suñ boroom digaloon te mooy fa yàlla joxoñoon rek fa lañ jawale wa anna haza sirati mustaqiman fattabiuhu ca digg yoon wala ñu aw jëmm ji nag daf ca bokk mu doon jëmm joo xamante ni bu ñu déggee aw turam faaw sa xel dem ci ab jullit faaw sa xel dem ci jaamu yàlla bu nangu ak njaam faaw sa xel dem ci taalibe suñ Tuubaa bu ko bëgg te wóolu ko faaw sa xel dem ci ku yéene ñëpp jàmm foo déggee aw turam faaw sa xel dem ci alquran fawu sa xel dem ci ragal yàlla moo tax mboolem jikkoy yi nga xamante ni jikkoy sànq la it daje na ci moom moom nag mi ngi gane àdduna ci 1913 ci waajur wu jigéen wu ñu wax soxna Aminata Lo di doom ci sëriñ Daam Abdourahman Lo ak soxna Aminta Mbàkke soxna Aminta Mbàkke nag moo ak maam Cerno Birahim ñoo bokk wenn waajur soxna Faati Isaa ko jur waajur wu góor yi fardul alam la muy Cheikh Mouhamadul Moustapha ñooñu ñoo ko jaboote bi mu matee daal jàngit jaarale nañ ko fi ñuy jaarale doomi soxna mooy jàng alxuraan jànge ko it ci daara muy usnul maab biñ demee ba seenum njàng sor yi itam seen waajur yóbbu na leen ci seen maam mook Serigne Cheikh ndax ñoom ñaar mëneesula waxtaane kenn te doo tudd ko ca des ndax lépp ñoo ko defandoo li leen tàggale rek mooy sëñ Cheikh jiitu ji dem barsaqul Muhammadiya sëñ Mbàkke des fi gannaaw te loola du ab tàggoo ndax boolewaat na leen bim leen yóbboo itam ci sëriñ bi mu nattu seen njàngum alxuraan jàngaloo sëriñ Cheikh sooratu Luqmaan jàngaloo sëriñ Mbàkke Madina sooratu Sajda mu mel ni seenub yar ca njàng moomee bari na lu leen ci sëriñ bi sol ndax ba mu agsee ci wa isqaala luqmaanu li ibnihi wa huwa ya'isu yaa bunayya laa tusrik billah da leen koo baam baamtuloo sëñ Cheikh baamu mu baamtuloo waat ko ba ñu toogoon ci jataay bi di déglu dañ doon dañ doon ree ndax sëñ bi ni mu insisté ci aay boobu waaye loolu dafa feeñ ci seenu dund ay nit lañu woon yoo xam ne jaamuwuñ kenn ku dul yàlla yaakaaruñu yoon kenn ku dul suñu borom tabaraka wa te loolu feeñ na ci seenu dund ñu jàng xam-xam ci euh, euh, Modou Makhtar Dieng ginnaaw bi itam la leen yóbbu njaareem ci sëñ ma dem ginnaaw bi mu jëlewaat leen fa yóbbu leen gànnaar ñu jàngi xam-xam maxaarijul xuróof ginnaaw bi itam ñu door a ñibb siwaat mu boole leen ak sëriñ ma dem ginnaaw bi la indi sëriñ Habibu Mbàkke Touba andi leen fii mu leen di jàngal fii ci tokkoor bi noog lenn ci njabootu sëñ Touba gi muy sëñ Blat sëñ Saliou ak sëñ Chouaïb loolu dafay tekki rek ni liñ war a xam xam nañ ko biñ jàngee téere yooyu ba pare it sëñ Modou daf leen wax ne leen ni li ma bëgg ci téereb suñu borom bi mooy ngeen wattu ko loolu am naa ko li ma bëggoon ci seen xasida maam yi it suñu borom defal na ma ci lu kawee sama njort li ci des nag dama bëgg ngeen ñëw jàng ma man nekk ak ñoom ñuy xool ni muy doxalante ak bindeef yi ñu xool itam ab taxawaayam ginnaaw bi nag la leen sancal ay dëkk wax leen ni leen nag li ci des mooy dama bëgg ngeen futti ku dem liggéey kon teel nañ leen a tàggat ci jaamu yàlla ak liggéey ndax bàyyiwu leen fa rek ca biir kër ga waaye daf leen ni leen ni dama bëgg ngeen dem ca àll ba liggéey wax sëñ Cheikh ni ko suuf sa nay de suuf sa lijjanti naa ko ba coow dana ca wees ndax danga ca mën a dem sëñ Cheikh ni ko danaa ko man wax sëñ bàkk mbàdd ko Tuubaa suuf sa lijjanti naa ko ba coow dana ca wees ndax danga fa mën a dem boole leen rek seen i gor yoo xamante ne nii ñoo maase ci at ñu bokk fa ne di boole liggéey ak jaamu yàlla fekk fa itam ay mag yoo xamante ne nii sëñ Modou lañ fa fekk si woon mu dël leen fa ñu bokk fa nekk kon ci jaamu yàlla ak liggéey lañ leen toqi musuñoo moomal seen bopp dara itam lépp lu mës a liggéey joxe nañ ko addiya lu leen nit ñi jox ci seen wërsëg ñu def ko ci seeni yitte kenn ku ci nekk ab liggéeyam la tax mu daan xam nu mu toll mooy ka ka ko yóbbu notti ko mooy dikkaat ni ko poids ba nangam la waaye ñoom mësuñoo xam seenub liggéey nu mu toll sëñ Modou itam boole leen ni mu bëggee ak njabootam ànd ne mooy ci ak mujjam daa wax ni wéet ak sëñ Cheikh ni ko àdduna soppi la baaxoo te dana soppi ko ma bëgg bu àdduna soppi ko nga jiitu sëriñ topp ci yow ndax danga ko man sëñ Cheikh ni ko danaa ko man ci ëllëg sa mu woo sëñ Mbàkke Madina ni ko àdduna day dana soppi te soppi la baaxoo ma bëgg bu àdduna soppi ko jiitu nga topp ci moom ndax danga ko man mu ni ko danaa ko man ba mu demee ab diir mu woowaat leen ñoom ñaar toog ak ñoom ab jataay ñi leen àdduna la ma doon kenn kenn ak yéen laa bëgg nu wasoo ko ni leen àdduna moom day soppiku te ci soppiku la jëm ma bëgg bu àdduna soppikoo seex nga jiitu sëriñ topp ci yow boo ëllëgee ku ca war a topp yàlla xam na ko ndax da ngeen ko man ñu ngi ko waaw danañ ko man mu ni leen kenn ku nekk ci yéen defal naa la loo xam ne mën ngaa beru doo gis sa morom te du tee sa adduna di jag waaye su ngeen ko defee sagalu leen sëñ Tuubaa siggalu leen ma dama bëgg ngeen ànd te yàlla tax lu fi nekk nekkal fi ñëpp su ngeen séddali dana am ko xewub cëram te yàlla doxale bëgg ngeen ànd loolee nag dafa feeñ ci seenug dund feeñin woo xamante ne nii war nañ koy waxtaane ngir njabootuk léegi man cee roy ndax lii xew léegi kenn xamut lu mu doon lu cosaanul yoon wi kenn xamut ko ci woon mooy ay tàggalikoo ki wanante gannaaw ñàkk wóolonte ñàkk dimbalante ñàkk joxante ay cër déedéet nañu xool dundug ñaar ñi ñoom ñaar ñoo bokk ak muñ nga ne àdduna ñaari ayi bis seenu magante sëñ Cheikh ñaari ay bis la magi sëñ Mbàkke Madina te boo fekkee seenu jataay da ngay demee sëñ Cheikh da koo magee lu bari kenn mosu leen fekk ñoom ñaari ñu toog ci kaw kenn mos ta bett sëriñ it mu toog ci wet sëñ Cheikh sol mbaxanaam te waxtu wu ci ne itam danañ toog toogaay boo xamante ne nii saa yuñ ne bëreet sëñ Cheikh ay jiitu léegi dangay dugg ci jataay doo xam ko war a nuyu ndax doo xam koy kilifa loolu mat naa bàyyi xel lu tax ñoom ñu mañaar ñu mënoon a ànd nag mooy sëñ Cheikh daa bëggut àdduna sëñ Mbàkke Madina iñaanut moo tax ñu mënoon a ànd sëñ du kilifa bëgg àdduna sëñ du kilifa gu iñaan moo tax ñu ñu mën a ànd sàmm ndono li nga xamante ne nii moom la leen fi seen waajur wi bàyyi loon nga xam ne gannaaw Cheikh Mouhamadul Moustapha ànd nañ àndin wu rafet woo xamante ne nii ba léegi jamono mënagut a tuddaat ci limu baaraam yu mat ci ni diw ak diw nii lañ dafa diw ak diw ndax kilifteef ki nga xamante ne nii sëriñ jox na ko ko te loolu mooy li gën a jafe benn rek bi ñu yoonalee sëñ Moussa nga xam ne lim fi bàyyi ci gannaaw gannaawam yoonal nañ ko Taïf ci sëñ Mbàkke Madina la féete woon waaye ginnaaw bu mu yëgee nii sëñ Cheikh ak bëggam a nga ci dëkk bi la jël kayit yañ ko jaayoon jox ko sëñ Cheikh Atiya loolu ak mbaax mënu ko mënu koo weesu te bu ñu seetoo kër yu bari miraas a ko tas kër yu bari miraas a ko tas moom ne ba ci yégee sëñ ama Tindo di moo ko wax ni ko sëñ Cheikh di day asgor soo xam du wax dara waaye xam naa ak bëggam ci Taïf sëñ baag man di jël kayit yi jox ko moo jox ko kooko du xëccoo ab ab vingt mètres wala vingt cinq mètres juróomi mètre yaa ngi ci am wala juróom benn tax laa yàq sag bokk xajamal ko ba kenn du ci nuyu sa moroom kuy joxe dëkk du gestu loolu te loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax sëriñ Cheikh gane ji na ko ca ngoon muy gont suñ mbekk mel na di ko gunge waaye daa fekk muy wiis wiisal te moom ku ne xam na ni yàlla na nattoon na ko asma bi mu wàññi ko mag ñu ni ko mënu woon a sol mbaxana wala lay dal ndax bàq bi commencé tooy ak asamaan si ni mu mel mu ni leen sama wér-gi-yaram jëral lu ma sëñ Cheikh di teg bëtam ci sama dàll walla sama mbaxana ci koo xamante ne genn ay bis ñaari ay bis la la la la magee kon la ko waajur la mu waxoon waajuroon ni ko mën naa ko mën na ko bu baax a baax ndax jiitu xëy na metti na waaye toppee gën a metti ndax toppee dangay ngay wàcc sa daraja te nit boppam da koo jege lool gis loolu itam lu am solo la ñu gis ni itam ni am na boo xamante ne ni sëñ sëñ Cheikh daa nekk euh, Dakar Sicap sëñ Mbacke ma na am fa yitte am mbokk moom doon seeti hôpital mu demee ñu ni ko sëñ a ngi fi mu ne na fa jaar nuyu ko door a jàll booba Sicap kër ga ñaari néeg la ak taal sëñ Cheikh ci néegu biiram la ko sëñ Mbacke ma na fekk. kon ko daa mbokk moo doon seeti ñun ma yaa ma ne naa fi jaar siyaare door a jàll mu ne ko doo mën a jàll daal di jóg wekki mbubam ci portemante bi sol bàyyi sëñ Mbàkke man na ci néeg ba fukki fan ak juróom <laughs> laaju ko foo jëm ba mu dellu si foo demoon daa agsi dong tàllal loxo mu ñaan kee kon ne dem dox yi soxlaam kee fukki fan ak xam ne dañu woon naa fi jaar nuyu la te dem dox yi samay soxla nga bàyyi ko ci sa biirum néeg loolu boo ko doon natt fi mu doon nii ci jamono kenn du la ko nangul bala ngaa ñëw fekk mu dem wala sax aw fitam mayu ko ko ndax ñaw njot fi mu doon nii <laughs> yàq na lu baree bari hmm. waaw nga xool confiance bi mu am ci koo xamante ne nii moo la war a wóotu sa gannaaw nga bàyyi ko sa néegu biir ki fan ak juróom dem te amoo ci arrière pensée amoo ci genn ñaaw njot moom it moo la war a wóotu mu am xel mu dal ci ni toog <laughs> nu nattu fii jamono toll fi mu doon nii ni jamono yàqo te loola rek mooy dëgg loola moo doon ànd àndub gor di ànd bu dëgg boo xamante ni yàlla doo nga tax benn intérêt lalu ko loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax ñu gis ne itam ni kilifteef moom lépp suñ Seex la ko jox xasee teew moom benn responsabilité du ko jël ci dara yow nañ jaareem fa lañ daan woree ñuy séentu weer wi ci kees gi mu nekk ñu ni weer wi feeñ na am ku ni weer wi feeñ na mu ni kon de su ko waxee fii de am weer wi feeñ na moom de su ko waxee fii moom ndigal lay déglu waaye ndax sëñ Cheikh mi fi nekk nee na am na bis boo xamante ni a soxna su fa ndox suuf laal ñu ñëw ni ko dañoo bëggoon nga ñaanal ko ndax ndox suuf da koo laal te booba sëñ Cheikh nga fi sëñ Basiroo mu ni du sëñ Basiroo gi fi ñu ni waaw mu ni sëñ Cheikh bi waaw mu ni ñooñu kilifa yi dem leen ci ñoom nga xamante ni jéemu tawane boppam ci dara te cër ba ñooñu am ci sëñ Tuubaa cër booba rek lam ndax koo xam xam ko ci jaamu yàlla ndax moom ci boppam wax na ni bi ma xàmmee sama loxo ndijoor ak bu càmmoñ ak léegi mosuma def lu naqari suñu borom te loolu boroom Daarul Muxti dana ko seere ndax sëñ Matar Samba nelawee mu dem fa moom la borom daaru jox ndigal mu taxawee ko ñu ko taxawee ba pare am na ci mag ñu doon wax xëy na at yu néew yeeg yooyu ak suñ mataar ni mu demee ci sëñ beeg yooyu waaye dañ leen day dama gis ni sëñ kum tinu yàlla tin ko rek moo tax santaane ko kon ku teel a cër la doon itam koo xamante ni nii relation bi mu am ak doomi sëñ Tuubaa yëpp ci cër yuñ ko jox rawatina Sëñ Blaat Sëñ moom bu doon amub xarit ci kaw suuf dañ naan sëñ Mbàkke Madina ay xaritam waaw donte sëñ ko mag tuuti waaye buñ bokkee toog da ngay defee ni Sëñ Blaat mën naa jur sëñ Mbàkke Madina ndax toogaay bi lem tànk sëgg orma jum jox ngir sëñ Tuubaa Sëñ itam jox ko cërub doomi sëñ lu ñuy séddale lu ne bu ci sëriñ génnut loolu suur na ko alaaj njoo kebe otoom yooyu mu fi jëndoon seefur lii ñu dikkee jox see blaat liste bi bi mu xoolee dañu ko ànd sëñ bàkk mbaat na ne nañ jël sama bas bi jox moom toujours cërub doomi sëñ Tuubaa ak taalibeem moom yéeme na ci ni mu dundee moo doon nit koo xamante ni nii nit ku ragal yàlla la ku nangoo wéetal suñu borom la ku bàyyi yàlla xel la ndax wax nañ ni suñu Ahmad Tindo di daa ñëw seet si ko bis boo xam ne daa ñëw fekk xam naa asma ji daaneel ko mu dem wooye ab docteur mu ñëw bindal ko ordonnance suñu Ahmad dem jënd ordonnance ba ñëw taxawu ko ba mu naan ci mu bàyyi ko fa dem ci suba sa Sëñ Axma ñëw di ko seet fekk mu takk ordonnance bi teg ko ci tànku lal bi Sëñ Axma nuyoo moom jàmmante ba pare laaj ko noo fanaane mu ni ko bi démb de bi mu fiy jógee moom bi añ bi ñëwee mos naa ci dara te yàkkamti woon naa reer ba te nelaw naa kon tane na waaye ordinance bi mu takk la mu ko wax ni ko du mu ni ko Mbàkke mu ni ko mag lépp lu yokk ay nelawam du yokk ak bëgg lekkam seytaane la mag lu yokk ay nelaw di yokk ak bëgg lekkam loolu seytaane la waaw <laughs> nga xam ne loolee <laughs> mos ci añ ba yàkkamti reer ba ak nelaw yooyee loolu xeebu ko jàpp na ni loolu bokku ci waaw loolu mooy xamante la jaamukatub yàlla la bu baax a baax jataayam lépp it arxuraan rek la nit ñi sax dañuy wax naan bi seen ñaari kamil la daan jàng waaye nee na ëpp na ko ndax fu noppee ci farata rek mi ngi ci kamil moom loolu koo xam xam ko ci moom. ñu miin jataayam ñëpp xam nañ ko muy taqoo goo xamante ne ni taqoo na ko ak alquran doon koo xamante ni nii itam noonu la amee woon yërmaane ci bindeef yi ay na ay nit ñoo xam ne dañoo àggoon ci jaay seen kër ndax jamono dab leen waaye ba mu ko yëgee da leen jox la leen laaj njëg gi nu mu toll ñu wax ko mu yëkkati lim booba jox leen. ba pare bàyyee leen kër yi te loolu ba léegi ñoo nga dëkkee ci kër yooyu seenu njaboot a ci ne mos naa am kilifa gu ñëw ni ko sama oto bi dama koy jaay mu ni ko kilifa gu ndaw du jaay oto yëkkati xaalis jox ko ni ko def ko ci soxla yi te tëye ko di ko doxi say soxla loolu yërmaande la joo xamante ni daf ko ëmbal ëmbal njaboot gi doon nit koo xamante ni ku gàtt aw làmmiñ la doo dégg mukk mu àddu ci waxtaan yoo xamante ni nii lu amul njariñ la naam nit ku woyof la woyof tooy nit ku mën a muñ la itam ku mën a muñ ndax seen waajur daa daan wax ni koo mënta muñ ay ba matoo ko kilifa te donga yi moom lépp a ngi ci moo tax sëñ Fall daan wax ni ñaar rek nu fi bàyyi xaj ak xajoo xaj seeni bon bon ak xajo seeni bang bang <laughs> yooyu moom képp ku jaboote faaw rek mu bokk ci biir bagaas yi waaye da gis ni ku mën a muñ la nit ku yaatu la itam mu tabe nit ku lewet te te dégg ndigal doon koo xamante ni nii yërmaane rek la ëmbaloon binde fi bàyyi Cheikh Mbay Dikri daa wax ni dama ko mosa wax ni ko sëriñ daa am lu may laaj te mu ne ko moom looy laaj mu ne ko damaa dégg ñu ni koo koo koo jullee mu texe mu ni ko ah seex loolu du dara di <laughs> mu ne ko la ilaha ni du dara <laughs> koo jullee mu texe nga ni dara mu ne ko luy dara kon mu ne ko li dara mooy boo taxawee bala ngaa kàbbar ñu jégal ñi ci sa gannaaw oh. waaw ñi ci sa gannaaw nga xamee <laughs> ay ay ndund la ñu waxuma la ki tëdd moom waaye bala ngaa kaabar ñu jéggal ñi ci sa gannaaw loolu dafay dafay wane rek taxawaay bi nga xamante ne am na ko diggam ak borom te yàlla nag bala laa toll fenn fi nga xaw a dee ndax yàlla moom du du bàyyi faalu kenn waaw moom li mu santaane da nga ciy bëgg a rey sa bopp mu sédd la ci boppam lu mu séddul kenn waaye suñ borom séddoon na ko ab cër. ku ñuy wax sëñ Mad Lamin Njaay nee daa ab taalibeem bu bu wàccub liggéey xam naa xelam ne ci sëñ Mbàkke Madina mu ñëw indi ko ko daal sama taalibe waaw wàcc liggéey lépp lu mu am nag man la ko jox ndax defe na ne lu ma wax yàlla mu def ko <laughs> taalibe bi daal lu mu am moom man la ko jox ndax defe na ne fi mu ne lu mu wax yàlla mu def ko sëñ Mbàkke Madina ko lu mu daan def mu ni ko ah, xanaa faat waxtu faat bakkan taalibe bi ab la woon <laughs> maa ko xanaa faat waxtoog faat bakkan waaye daal indi naa ko euh, lim yaakaaroon ci man nag ci yow mii laa ko yaakaar waaw mu ni ko nañ ko indi loolu mooy mooy cër bu ko suñ borom sedd ci boppam yërmande jëmu ëmbal bindee fi loolu taxawaay la boo xamante ne ni caaxaan mayewoo ko loolu noonu la doon noonu dundee ak yoon wi yëpp noonu la doon dundee sëñ Fallou seereel na ko woon ak Murid Saadix sëñ Fallou ko seereel ak Murid Saadixam sëñ Blaat itam kenn ku ne xam na diggante ak moom sëñ Blaat dafa waxoon ni ko moom bu sëñ Tuubaa dellusiwaatoon ñëpp danañ jàkkalaat seenu jataay ba mu des yow ndax noonu muy dunde moom naka jekk noonu la doon dunde mooy bàyyi sëñ Tuubaa xel ndax sëñ Tuubaa daf daan wax ni képp koo xamante ne nii dees na la tudd di ma tudd yaa xam loo mën a doon ci man nag te su nit jógoon di ma seet si su yemee ci yow duma ko jaral ak ndax saw melokaan suñ tuwaa ne doo jéggi siraat mu kutulooy ko maag bàyyi woon na xel loola bu baax a baax ci ci ci melokaanam doon nit ku sàmmoo sàmm nag ku sàmm lool lool ndax nee na am na bis ci foofu yi ci Madina ñu indil ko añ mu raxasu bay bëgg añ soxna benn fàllu nuyoo jiñ ko ndab li seen ñaari waajur yee bokk ndey ak baay waaye mujjee ñu ko nag ñu xewloo ba waxtaan ba dem la ne nañ ko indi ñu ne ko ah waaw mënoo woon a moom. mu ni koo xamante ne nii du doon doonut mu xaram ci yow wërtu joo loxoom ci biir ndam nga ti joo sa loxo loolu ak sàmm mënu koo weesu <laughs> ak sàmm mënu koo weesu sàmm sàmm diineem moo tax seenug dund di dund gu barkeel goo xamante ne nii mat nay bàyyi xel bu baax a baax ndax cëfër cëfër ji xew ci yoon wi ak lu neex waaye def ñoom sañuñu ko woon te dama wax ñi ko sañ ñemewuñ ko ñi ko sañ ko ndax ñoom boo gisee ni ñu sàmmoo boo gisee li li ñuy wagar ak ni ñu tënkoo ci sariya bu doon sañ-sañ rek ñoom lañ gën a jàpp ni ñoo ko gën a sañ waaye ñemewuñ ko ndax bàyyi yàlla xel ak itam sàmm ormay sëñ Tuubaa ji loolu bokkoon na ci ñoom parce na ñuy wax itam benn mbokkum tali bi ni sëriñ si def rek ku ci am lu baax wan ko su mo mbokkum sëriñ am ko jox ab aw tur ni ko tur yi de baax na xam naa boo ko xooloon nee na mu jëfandikoo ko ci guddi bi mu xëyee ñu indil ko addiyee oto mu ni tur wi deetu ko laal ndax boo demee tur yi moo tas tasxiir waaj ba mu indi indi oto bi nga xool fii jamono toll nga xam ne daanaka sëñ si ndaw sépp fi mu ne mu mën a tasxiir la ñuy wër <laughs> ku la ciy laaj rek boo ko ne am naa tasxiir moom deetu jóg sa kër li jotu dañuy boole di tasxiir ak di la tàggatloo ndax yor na dara te nangu ma koo jox nanga nag mu xal moom mu wóor ko ni moom du ak jubloom waaw boo demee sax waa weer woowu wépp wóor na ma ne turu waa ji dong newut ci xelam waaw waaye comme jëfandikoo na tur wi rek. te mu tombe rek <laughs> mu ni tur wi deetu ko lal. loolu dara gënu koo yéeme. Euh, doon koo xamante ni itam diggam ak bokk yi tabarakallah bokk yépp mën nañ koo seere ci ak rafetal ak taxawaay ak taxawu leen itam ca wet kam leen war a taxaw yooyu itam ay taxawaay la yoo xamante ni léeg jamono daf koy laaj. waaye léeg-léeg day manqué lool lool lool lool muy tànqamlu ak sëndëmtalu ak jëllu loo waroon a def waaye ñu gis ni yooyu yëpp sun borom musal musaloon na ko ci ba ay taxawaayam tabaarakallah taxawaay yu rafet la nga xam ne léeg-léeg daana toog ba du yor dara nga xam ne danga koy wax soxla mun la toogal xaar yàlla moo nga xam ni amuñu woon compte banque amuñu woon coffre bu ñu doon denc ka leen doon yarit ci noonu la leen yare woon mooy lépp lu fi ñëw soxla sum su fekk na ngeen ko ca def loo ca des na ngeen ko jox jaam yàlla yi te noonu la doon dunde waaye na am na boo xam ne sax dañ ko fa nekk Madina ñu wax ko ay bokk yu war a siyaare si yu jógee yu Ndakaaru war a ci ñaari ñaari oto ñaari 508 buñ nañ ko mat te booba kër gi dara nekku fi kër gi xaw naa doy waar lool dara nekku mu ne waaw baax na booba sax ñu yàlla dogal na sëñ Cheikh mi ma nga fa te sëñ Cheikh ñu wax ko mooy quoi nañ xaar ba mu ñëw rek ñoo xamagut ñu toll moom neexu ñoo waajal fekk benn taalibeem bu nekk Mbàkke boo xam ne dafa gëj nekk moom jënd naw nag fas ko yéene togg ak la muy àndal lépp andi ko addi bi mu ñëwee jógee Mbàkke ba ba ñëw ba ba sippi li mu li doon togg ak la war a àndal bi muy génnaat la taseeg ñaari 508 yi di dugg si biir Madina nga xam ne dañoo mel ni moom dañoo dañoo yëgoo wala bu fekkoon téléphone daam danga naa ko daa téléphoné rek ñëw leen nañ leen toggal waaye biñ berndelee gan ñi ba gan ñi delle mais ba mu génnee njaboot gi daje dañ leen suñ borom day bañ na lool sama gàcc waaw suñ borom bañ na lool sama gàcc loolu nag ak juboo lay tekki diggante jaam bi ak borom waaye loolu xaw a dee koy maye ndax sëñ tu sëñ nee na barke ak àjjana ak alxuraan a suñ borom mayewu ko da koy jaay te njëg gi itam du nangu nga avance ko di ko deseel dangay fay ba mat mu door la koo jox hmm. moo tax mag ñi seenu dund dund gu tar lañ dund hmm. mooy wan àdduna gannaaw fagguluñ ko dara mosuñu ko bàyyi xel ba ñenn ñu gàtt xel sax dañuy jàpp ni dañoo xamut àdduna te fekk xam ko guñ ko xam moo tax ñu teg ko noonu mosu leen yàqal dara waaye daal jaamub yàlla la bu nangu ak njaam ab jullit la bu rafetal ak njullitam taalibeeb sëñ Tuubaa bu ko gëm te doyloo ko nit ku yéene ñépp jàmm la ba keroog bi mu dëkkaale ak boromam biñ ko waxee sëñ Ablaat sëñ Abdu Xaadir la wax ne na ko taxawee ci sëñ ñëwut ndax nee na moom mënta tiim sëriñ ñu di ko def ci biir suuf loolu mënu ko sëñ Abdu Xaadir la ba sëñ Abdou Khadir demee taxawee ba taxawaay ba mat ba mu del siwaatee dañu ko noppi ngeen ci la doon def mu ni ko waaw mu ni ko sëriñ de fii mu bàyyi ko bàyyiwu fi ku ko gën te foofee mu jëmi doo fekk koo gën ndax ñooñee muy fekk lañ doon bañ loola rek la doon bañ ba fekk leen te loola rek moom ci la ko sun borom digaloon euh, ñi ko fi bàyyi woon it ci loola doog lañ ko battale woon mu doon dund gu barkeel goo xamante ne ni mat nay waxtaane ndax ndaw ñi mën a am fu teg seen tànk mën na référé woo ndax fi mu toll nii jamono doy na waar euh, safaa noonu euh, larax yi bari na yi mën a tarxiis loo nit itam dafa bari ba tax na waxtaanee mag ñooñu waxtaane seenug dund te am solo torop mu bàyyi fi itam nag njaboot goo xamante ne nii fa la njaboot gu suñ boroom dugal loxoom la ndax kenn déggu leen ci dara kenn déggu leen ci dara bari na ñoo xamante ni ni boo leen doon laaj ni leen ndax sëñ Mbàkke Madina jaboot na dañ naa la sëñ Cheikh Madina laa ci xam te nekk gi nekk ci bopp tax ñu xam ko waaye xamuñ ci ñu bari te dara warulu ko nag lu dul nekk fa ñu war a nekk ne ca lañ war a ne te am bis sëñ Fallu di laaj mag ñi ni leen mbind lu koy tax a rafet mbind mag ñi kenn ku ne wax xalaatam sëñ Fallu ni leen déedéet mbind li koy tax a mooy arafo day nekk fa mu war a nekk ba pare niru li mu doon sëñ Sooy bu dégg ko daal ni loolu de baax na ci mbind waaye ci nit la gën waaw nit day ne fa mu war a ne ba pare nitu la mu doon <laughs> loolu moo feeñ ci ci ci njaboot gi muy taxawaay yu rafet yoo xamante ne ni fa leen waajur yi bàyyi woon ci jaamu yàlla ak liggéey jàpp seen bopp ndax toujours damay wax ni ab àndandoo moom bu la wóoree ni doo ko séen ci lu yàlla tere te du la lëjal ci sa alal doo wéet moom derub gor yàqu booy wut àndandoo àndandoo ngoog te wax dëgg yàlla moom la luñ kenn fenn. fenn fenn kay kenn du leen seen di làqatu ji kay moom. tey léeg nga gis ku samp xelam koo xamante ne nii borom sant yu gàtt yi doo nga tax muy daw ndax ay teg-teg waaye ñoom day wax dëgg yàlla bokkuñu ci. waaw doo leen seen mukk ñu samp soo doo leen seen itam ci lu ci lu yàlla tere loolu nag ab yar la ab taxawaay la mu jiitu ndax Sëñ Tuubaa daa waxoon. doomi seex yi ne leen na ngeen doon seeni baay te bañ a doon seeni baay doon ak donn nag daa bokkut na ngeen doon seeni baay te bañ a doon seeni baay daal leen di jox misaal ni leen daa am xaafisul alxuraan bu ne ci ab dëkk mokkal alxuraan lool bëgg ko lool ci xolom itam bi mu demee ba màggat nag laal bi muy tëdd mu defar ak tëggat dagg kaamil alxuraan teg ci saa yu ci xel mi nekkee rek day dugal loxoom wàcc kaamil bi jukki li mu bëgg a jukki jàng bu paree tegalaat ko Eh, bi mu faatoo nag waa dëkk bi daje ñi nga xamante ni xamoon nañ góor gi bu yàgg ba muy am kàttan ñu ne am na doom ñi nga xamante ni ci mag lañ ko xam ñu ni amul doom ndeke doom ji mbërum làmb la. sëñ bi nee ñu ni nañ ko wëri mais eh, wër ci dëkk yu ko fekk ko ci mbappat mu summi ko bay bëgg a bëre nee na ñu woo ko teqi ko ni ko sa waajur daa génn àdduna ñu bëggoon nga ñëw ci kër gi sëñ Tuubaa nee na mu ànd ak ñoom ñëw ci kër ga eh, bi ñëwee ñu dij ko ca lal ba bàyyi ba daan toog. nee na kooko doon na baayam ndax toog na ca lalu baayam bu solee mbubam mu yor ko bu solee dàllam mu jot ko waaye ne da doon fudd loxo ba dal ci kamil ba mu tasaaroo mag ñi jël ko ni ko booy boo ko ndax sa waajuroo ko daan yor sëñ bi nee na mu nekk ci kayitee di lëx yi ndax xamut wenn wu ci ànd ak morom ji nee na kooko daa doon nu baayam waaye doonut baayam waaw doon nu baayam la def waaye doonu ko moo tax ñu doon sonn ci yar njaboot gi fa tabaarakallaa sëñ Cheikh ñaan suñu borom guddal aw fanam ndax doon na ko waaw loolu la doon wax ci sëñ Mbàkke Madina boo yemee ci jëmmam da nga xam ni loolu dëgg la waaw boo gàtteem xel sax da nga naan du est-ce que du kiñ ma doon tegtal moom laa fekk ni mu toog waaw ndax foo ko fekk ma ak téere ba ca téere bu ay waxam guddut te nit ko am njariñ la te mën a dimbale te loola rek la ñuy sagale sëñ bi bañ na ko ba jëmut ci tax moom ca ba la jëm sëñ Cheikh boo ko déggee daanaka Tuubaa kayel nga ko dégg wala Madina ba Ndakaaru at mu jot benn yoon nga ko fay dégg loola nag mooy ormay sëñ Tuubaa ji ak doy loolu yi nga xamante ne ni moom la ko suñ borom jox tam nangu ko bokk bokk itam ndax doo dem mukk ñun la daa tëju wala xaar ko wala ñu ne anam ñu ne daa tukki woon waaye ñëwagut bi sàngam lay ñëw <laughs> déedéet loolu itam bokk na ci taxawaay yi bokk na ci li ñu war a sàmmee war may sëñ ñu ñaan suñu borom guddal seen fan te wéral seen cër suñu suwaay ñoo ngi koy ñaanal bu baax a baax suñu borom taxawu ba li mag ñi doon mébét ñu def ci lu kawe njot wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf macha allah jërëjëf kon eh, xam naa mbokk yi loolu mooy jataay bi nga xam ne ni moom lañ leen eh, waajal loon tey ji muy jataay bu am solo boo xam ne nii buñ ci nekkoon di ci joxe ay kàddu mbaa di ci laaj ak eh, topp ay baat yaakaar naa mën naa am lii ñu fi eh, joxe tey duñ ko fi génnee waaye ñuy sant bu baax sëñ Ahmadou Ndiaye Nguerane di sant bu baax sëñ Moustapha mi nga xam ne ni moom moo moo moom la fekk si te ne te ne ci këram. Eh, ñuy sant bu baax it eh, ci taxaw bi mu tabax taxawu njaboot gi ak it eh, ci li nu fekk mu nekk ko ak njabootam loolu it jox nañu xel mu dal ci ne loolu doon junj sëñ Mbàkke rek feeñ na ci jataay bi ñu sant bu baax a baax a baax xanaa fekk na ne fi kenn koo xamee ne ni kenn la ci ñun moom it xam naa du ñàkk xam naa du ñàkk kàddu yu ci kii rek rafetale ko <laughs> jërëjëf saana ilaahi bil munaajaati wa abadan nax naa yeddi anaati saana ilaahi bil munaajaati wa abadan nax naa yeddi anaati dalaala yow lama walaw liyaa man laa yazaalu xuwati walaw liyaa xasiidati faaxat xasaayid alkiraam ولي تقود أبدا خير المرام هديتي مخجلة كل مليك كان مناسيا وأساء مليك ما تواجه النصارى الله لي بلا إله إلا الله يلا دبور te mooy dogal moo mën a fay fay naa sëriñ tuuba bilaay ngan gi fay yaari guddeem yawan ca biir ndakaaro noon ya bu seen pexe juban waaru lislaam ji bég na am na ndam te siggi na tubaab am na gàcce tale na ginnaa ne ñoom buñ dekki woon ba gis lii dana ni woy Cheikh Bamba daa xamoon lii jàppoon ko tëjib ko so ngir doon comité tal sëriñ bi naa leen yàlla di buur moom laa tal gaynde gu xiif seen nag wa dañ ko xabtal sëriñ bi ne yonanti bi saa wetal bañ koy dugal di puus ca biir seen kasa ba rabb gasar ba ca bitib tànkam ba masul ni u masul rët ngir yan ba wetilu ko bur yàlla ak yonen ba ñu tëj ko foofa bàyyi koog buram ba ak wetalam rasulu may yonen ba waajur wa muy maam jaara mee ja Poroxaan ñëw fa ngir soññ ko lii mooy kiimaan sëñ Bamba nee na fa kay doomi Abdalaaye rango ko fay médaille bismilaay mbooloo mi dañ ko dugal ca gaal ga waaw muy sambalaay weeru badar cey kooka da ngeen di wi da badar ak seydina rasulu may xayril basar naqarowan moon andil tey sun mbég mi fo lamb daj habdal xadim ci réew mi loola waral daara ya ndakaaro te duutul fay cey waaye dul ceji juma ceji juma ceji juma kum jaar ci yow du to fay mbak yi fay saw yal na la fay Touba Masalik juma jaay me entreprise ba yor gi ba xame dem naa ca biir gis naa fa man lu buuri bët billahi ahmad al khadim rey mébét subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin jërëjën jëf jërëjën jëf baax na ñu ngi siyaare sëñ Moussa bu baax a baax a baax noonu nag suñu borom danoo nattoo lii jàng xasida ak taalif yooyu nga xam ne maako taalif hmm, gudd na lool ay téer yu baree baree baree bari la kon nag ñu ngi ci ñaan bis bi yàlla nañ ko fekk waat ak jàmm am nañ ci yaakaar lool sëñ Mbàkke Madina moom mu nga xam ne waral bis bii tey man mooy sama lépp sama taw moo ko ngénte moo ma defal lépp mooy sama adduna mooy sama alaxira mooy sama gàllaaj mooy sama musluwaay mooy sama lépp te waxoon naa ko moom dara ka dem te sant sant naan lool nag sant naan lool nag ndax sama waajur mus na koo wax ni ko de di am lu muy jàmbar mu ne ko man day sa deex loolu baax ci man waaye ke sëñ Mor Kumba Kande lii may woyof woyof kenn yëbu ma ci kenn tarewu ma ci kon jërëjëf jëf sëñ Moustapha yàlla na ko fi yàgg te wér waaw yàlla na ko fi yàgg te wér jërëjëf jëf